waaw euh, salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ginnaaw bi ñu nuyoo euh, mboolem taalibe yi te jiital ci nuyoo bi Cheikh ba Bachir mu yàgg fi bàkki bada te wér di ñaanal itam mboolem yëpp ak jullit yi di ñaanal itam waa Touba Info ci jamono yoo xam ne saa yu dara xewee rek danañ ci taxaw taxawaayu bu am solo ba tax ñu impliqué ma ne naa wax ci li nga xam ne moom la yàlla dogal ñu di ko wax muy coronavirus man nag très sérieusement nëruma ci woon sax wax waaye dafa mel ni dafa am benn vidéo boo xam ne am na ku ci nekk ñu présenté ko am sëñ Mbacké Mara xam naa dañoo bokk tur rek euh, waaye moom it euh, xam naa du man waaye nag am naa ci ay xalaat euh, xalaat yi ma ci am moo di il faut jamais nier l'évidence di jéem a wax ne amul kooku man jàpp naa ne c'est un danger mbir mu mel noonu su amee Touba man dama koo jàppee man sixième puissance mondiale li tax loolu mooy su fekkee mbir mu mel noonu dafa am Chine mm, am Iran am euh, euh, Italie am Espagne am états uni ñëw tuubaa kon dañoo war a xam ne Touba dafa bokk ci la cours de grands kon loolu lañ noonu lañ ko war a jàppee. Euh, ma am itam lu baatin bu ma ci gis tuuti kooku nag man la concerné mooy man damaa jàpp ne dëkk bii di Touba aw turam dana jëm fépp ci àdduna kon ñun yàlla dogal na dugg nañ ci cours des grands. musuñ cee génn nag parce que ñoo ci jiitu ñëpp waaye man noonu laa ko jàppee ci pas-pas euh, ba loolu wéyee nag su mel noonu amee damaa yaakaar ne dañoo war a dégagé responsabilité yi sensibiliser nit ñi ki nga xam ne mooy euh, suñu kilifa wax na ñaan na itam ñun ñëpp doyloo nañ ay ñaanam waaye ginnaaw bi nga xam ne doyloo nañ ay ñaanam ba pare itam nag li nga xam ne nii moom la ci médecins yi wax nga xam ne c'est des techniciens de la santé nit ñi dégg ko te suivre ko ndax lu am solo lay doon ndax li tax ñu war koo dégg te ko mooy ñaan yi moom doyloo nañ ko ñun ñëpp waaye li nga xam ne ministre bi moom la wax ak ministère bi ci wàllu sensibilisation comme daal nu muy mel ñu ñu gëstu ko benn bi ci des itam on dégage les responsabilités pourquoi parce que jàpp naa ne dëkk bu toll ne Touba 2 euh, millions de personnes li OMS wax normalement Touba waroon na am 200 postes de santé waroon na am 4 hôpitaux waroon na am 3 districts sanitaires loolu lépp su fi amoon danañ mën a waajal pyramide sanitaire bi ba yu mel nii yëpp du am parce que tey Touba su fekkoon tey am na loolu jafe-jafe du am pour pourquoi parce que da jël 10 euh, postes vingt 20 postes isolé ko def ko par exemple euh, fi nga xam ne fii la ñuy yee euh, su su jafe-jafe amee. ñàkk gi loolu ñàkk am nag ci la nit ñi war a nag communiquer ne lii su amee ñëw Touba su fi defee jafe-jafe parce que am na lu fi war kenn defut muy ñàkk poste de santé yi war nañ ko wax. ñàkk gi nga xam ne aussi jël na ñàkk nañoo jël dispositif teg ko à l'avance loolu aussi am na. ne gën woon naa fekk tey ñu jël ay centre d'isolement teg ko jël ay médecins spécialisés beneen bi ci des itam mooy waa Touba aussi xam ne ñun dañoo war a yor suñu communication bopp parce que comme mel ni ministère de la santé mi ngi góorgóorlu waaye kenn ku ne xam ne ne c'est un technocrate ay nit ñoo ko wër di ko jox ndigal di ko di ko di ko di ko conseil ñun dañoo war a fexe ba jamono yu ne fi ñuy fi ñuy jëlee décision ñu dafa nekk pourquoi parce que na nit ñoo xam ne peut ñu ngi jël ay décision euh, ci wetu ministère de la santé te ñoom ñun ñoom xamuñu nun bi ñuy dund xamuñu suñ psychologie xamuñu suñuy comportement te dañoo war a àgg foo ne Touba nag léegi décision bu ñuy jëlee ci ñi nga xam ne nii ñoo koy jël dañoo war a am waa Touba yu nekk ci seen biir xam psychologie Touba xam environnement Touba xam Touba bi yenn comportement yi mais daal man li ma gis moo di il faut pas nier l'évidence yàlla dogal na mi ngi fi nañ fexe ba sensibiliser nit ñi ci ku am nu muy mel suñ sensibiliser nit ñi ci ku am nu muy mel ba pare nag. responsabilité yi tam ñu wax ñi nga xam ne ñooy ñooy suñuy responsable muy district sanitaire bi parce que gis naa docteur Dieng bi nga xam ne mooy yoroon district sanitaire bi affecté nañ ko Diourbel comme régional ñu wax ne mooy gérer intérim bi kooku yaakaar naa ko xam dëkk bi la. te itam euh, noo ngi koy ñaanal itam su demee ci région ba itam mu am fa ndam ndax moom dootu am aw lay ndax ginnaaw léegi moom dem na ci région ba te gérer na district bi ay ati at donc bari na lu fi nekk loo xam ne nii wax dëgg yàlla woo war na ko mën a gérer benn jële si mooy comme nee nañ euh, suñ koy faj ay symptômes la. Euh, lii day métti nangam day métti ñu itam ñu wax aussi ci leneen loolu mooy euh, euh, ci lee médicament il faut que nit ñi aussi ñun parce que malade soo ko amee di ko faj ci médicament yoo xam ne ni par exemple xay na baaxul malade bi man naa bañ a wér loolu aussi nañ ci sensibiliser man yaakaar naa foofu la wax ji war a nekk waaye ëmbul moom ëpp naa wax ginnaaw bi mu amee ba pare sëriñ bi ñaam na nañ doyloo ñaan yi te sensibiliser nit ñi ci ni muy dugg ci nit ñi te fexe ba tey dem na état aussi jël responsabilité am parce que Touba nii mu mel jaaduwul sur 30 postes de santé pour une population de 200 euh, 2 millions de personnes diarrhées. Euh, un service d'hygiène pour une population de 2 millions de personnes diarrhées. un cas de sapeur-pompier pour une population de 2 millions de personnes diarrhées. kon suñ communication ñun nañ ko accéder ci li jaadu te waroon fee am te amul te su fi amoon xam na xëy na mu mën a mu mën a gën a yomb ci nit mais nii l'évidence moom man je pense que ne c'est trop maa ngi ziare bu baax tey jéggalu